ndax lu dëgg lalul tamit. du yàgg du yàgg mm-hmm, mm-hmm. mu ngi noonu. kon mi ngi man daa gàcc baari gàpp gi ci nekk sax rek moo tax ma ci xaw kii sax parce moom sama doom sama doom baay la. Mm-hmm. ñeneen ñi moom. ñeneen ñi bëggaan. dëcc faal départ gaynde. départ ah, moom tey xaaruñu ko woon sax moom Khalifa ah, Sall. ah a bokk waaw. Ah, ah, a bokk a dugg kay xanaa. na moo nga nag moom. Hmm? problème am mooy na bokk rek. waaw moom ah, am dara solo noo ko man naa bokk rek moom na bokk affaire moom xamul conséquence ak aboutissement moom na bokk rek naa bokk rek waaw bokk rek naa bokk rek waaw lan ma waral sonne si la parce que ëpp ñu ma fit bu dee fit la ëpp ñu ma ko hmm. moo tax ba ma génnee ñu ne dañu def coalition fit ma ne naa bokk ci fit bi sinon dañu yaakaar ne ab ragal laa hmm. te ab bu xot du def politique <laughs> ah. ñoom ñoo la si boole yow. Hmm. ci dama xam ne. dama cee war bokk rek. mën ngeen bu ne. dëgg bi dafa kaataal seen ànd boobu man kenn la sa laa sóor dëcc mais mais mais mais mais Alla tamit day faral di respecté suñu ay invités. vraiment tamit parce que moom tam ni moom mi ngi gis ni xalifa. Euh, ñaari fit laa ñëwee bu bàtt li muy ak sama bas laa boole. waaw ah, kon am na fit. waaw wax dëgg am na fit te mën ngaa bokk ci fit. dama ci bëggoon bokk mën naa bokk ci fit waaye nag gis nga. jëmbat fa nga wóoru dénkaane fa nga doy nit fu la wooyewul waroo faa dem. kon awma fit nga bëgg a wax. Ah, mais dañ laa woowul moo tax may wax. dama cee bëgg a bokk coalition opposition la man nekkuma pouvoir. bu fekkee dafa bëgg a bokk dafa waroon ñoom bu ñu ko ci bëggoon a boole bu ñuy def seen coalition. dañ koy woo sax waaw dañ koy woo. ñu mooy maanaam dañ la écarté ñoom. su ma ci écarté mooy kon man Khalifa Sall amul fit. ah ñoom ñu ngi moom nag wax dëgg yàlla son excellence ñun franchement on vous respecte beaucoup mais suñu problème yëpp nag mooy làmb si yëngu nga gis ak bëree lewato bi ngay def ak président Macky Sall ah, tamit ma gisee ne Sonko bokk ci laa ne mën naa faa nekk kon. comme que bokk ci kay laa ne comme que dañoo laalante te neexootuñu. Ah, a la jógee ci kii du àll bi yoof non damay àll bu yow dama ne la. yow ñaata yoon nga ñëw kër ga yow yaa toog bii ah. tey. Cheikh Ndiaye Ndiaye moom dama yore Ndiaye man suma ah. man. man kilifa kuy doon daanaan ministre président ak xam nga yàlla. Hmm. man dara fukk sax je dis carrément. si déedéet bu ko waxee je te reconnais. si la. ñoo def fan si club Khalifa. man Cheikh Ndiaye Ndiaye la. yow xanaa ñaari àll. waaw dama bëgg xam waaw. dama ne. jaru ngay sos nga baal maax quoi. si xam nga am na doo xam ne man déedéet gàllankoor président man ma wax ak yow. bi may ñëw lañ ma wax seen mbir. non àll bi ko ne bi ko ko ne xam naa ko. non xam naa ko li mu wax nag mën a exagéré xam xam naa yow xanaa ngay ngay taxaw di wax. parce que kii nag kilifa la waaw fii on est tous destrimés. non non lu laay am yàlla moo ko jox. waaw àll bi aussi àll tamit. Sénégalais dafa doon ko ñoom débat il faut am invité. fit bokkoo am fit ci Ousmane Sonko nekku nekku fa ma naa ñoo dooleel leen. loolu la dëgg la parce que am na eh, expérience bi neexuñu ma nekku fa mun naa faa am nga expérience bi te am man maa yób kon man maa yóbbaate nga bëgg a wax. non tamit mais tamit yéen man. barki sëñ man maa man ngay man ngay kii xam nga yow gis nga gis nga. Ah, yow bu ma doonoon candidat dinañ fi xeex léegi. xam nga xam nga man. xam nga man bu fekkee ni yéen mënoo leen maîtriser ci plateau yéen boo leen yore réew mi moom tamit franchement du do waaw mais mais aussi quoi que xam nga c'est pas non taxawal rek àll moom mënoo ma dénigré de voilà loolu la nag mu war ko mën a def mënoo ma dénigré mënoo maa yàqal waaw yow mënoo maa yàqal bu mu la déstabiliser seen koo nekk fa du ma fa dem toog fital ko am benn benn monsieur monsieur Xale ah ñoom dañ la weddi de waaw ku ma weddi ñëpp ñoom ñoom ñu collaboré wu noonu. yaa ko fekkee ñoom ñoo mais ñoom ñoo ko wax. yow ku ñeme yàlla nga. dañ la weddi de non luñ ma weddee. mais dañ la weddi ñoom nee nañ depuis ba nga demee ci ci ci ci dialogue bi. ci lañ pare ci say mbir de. bon baax na maa ngi dem. Ah, yeewaguñ la parce que point yi ñu war a waxtaanee bari na. dama doon ñëw rek pour wane leen ne am naa fit comme que da ngeen maa ñëw pour dénigrer ma dem kenn du ma yàqal. dénigrer wuñ la de. waaw ah, mais mais aussi mais aussi. Barthélemy am na beneen question de. Barth. eh Barthélemy. mu ngay woo Barth di. xam nga nag euh, doy na waar doy na waar doy na waar parce que tamit tamit euh, war nañu mën a jéem a recadrer suñu débat parce que ku mel ne àll aussi tamit autorité yi dañuy bàyyi seen lépp ñëw aussi àll aussi ah. ah. te moom day may ñoom ñuy daw seen i seen euh, yu ñeen war a indi waaw moo tax nga war leen bàyyi bu nekkee yow leen di